donc dañ lay bàyyi nga wax ñu euh, Ali Fall ci lan lay yëngu exactement bu ko defee ñu nag euh, jàll ci li nga xam ne mooy question réponse aywa jërëjëf euh, ma delluwaat leen nuyu. Mm-hmm. di leen ziar bu baax a baax. en fait man je travaille je suis le coordonnateur du mm-hmm. projet pour la reconstitution de l'identité des enfants. Mm-hmm. maanaam xale yu amul ñu koy di juddu. mag ñu amul ñu koy di juddu. ñu géem a xool ensemble naka nañ ciy liggéeyee. ba ñoom ñëpp ñu retrouver seen identité. en fait avant loolu makoy def je faisais des reportages de sensibilisation sur l'état civil mhm. manam gema xol naka dañuy génnee les problématiques liées à l'état civil ñu teg ko sur la table mhm. waxtané ko nit ñëpp xam ci sen parce que état civil difficile mhm. problème bi mooy nit ñu comprendre ñu ko ok légui manque de compréhension compréhension bobu nak il faut que nga waxtaan ak ñom boo ko waxtaan ak ñom moy sensibilisation yi ngay def yi jël cas par cas diko traiter traiter parce nit gi mën na foog ni sax bu amul koy kayitu du dem uti ko day difficile. Mm. ba doomam ñàkk fa njàngam ak yeneen yu ciy topp. Mm. alors que yoon bu simple la bu bu limité la boo xam ne bu fa jaaree. c'est difficile mu am. kayitu juddu. Euh, euh, tey jamono ji yaa ngi naan reconstruction de l'identité des enfants mu nekk lu am solo parce que xeyna na eh, eh, ku amul kayitu juddu pour mu identité amul juddu am li nga pièce nationale d'identité te boba, buñuy buñuy buñuy un am droit ak devoir ci réew souvent sax da pièce d'identité dañ donc mu un point sensible boo xam aussi Sénégal def na mais il reste encore des séquelles ay secteurs yoo xamante parce que wax nga ni xalé yi euh amna ñu bari ñoo xamanteni ni déclaré wuñ leen won bañ bañ juddoo donc amuñu li nga xamanteni moy pièce d'état civil bobu mais amna ci ay mak yo xamanteni ni dem nañ ba magal et je pense que problème bi fofu la gëna metté mak yi nga xamanteni dem nañ ba tollu yenn âge ba légui amuñu li nga xamanteni mom moy pièce d'état civil euh, fréquemment fan ngeen bi gëna a gis wàllum euh, problème yoyu euh, dans les villes fi nga xamanteni ni mom moy les grandes villes wala boog ci village oui Fatima le problème est général. Hum, fépp la ok parce que xam nga Sénégal dafa dañoo yor ñaari jikko. Hum. soit da ngay xam li tànkam lu def la neex. Hum. soit nga ñàkk xam nécessairement bañ def. ok comme par exemple boo si mak ñi nga xamante tok tey toog nañ lu yàgg amuñu kayitu juddu. xam nga kayitu juddu dañ la même boo toogee cent ans sa xel dem ci nga war ko am. am na ay procédures yow mën a jaar. nga reconstituer sa état civil ok parce que tay bo jëlee état civil ñetti ponk la moy mhm. naissance mariage bi. Mhm. ak décès bi. ok te peine mënu ci dem baye morom plus les mas, les mentions marginales. ok moy mention yu ñuy mentionné au niveau psychopilitéral. Mhm. tay juddu nga par exemple ben exemple ba am 15 ans amoo kayitu juddu c'est facile par exemple tay soit di nga am certificat d'accouchement bi amo certificat d'accouchement bi. gox bi nga dëkk bi xam nañ ne gox bii nga dëkk. Mhm. na gox bu fa nekk ba. Mhm. xam na ni yow bon même bu la bu la jàppalewul sa bañ bañ bañ lay mat aussi si koñ bi la dëkk xam na ni fa nga dëkk. Mhm. chef de quartier bi xam na ni fa nga dëkk. ñeneen ak ñeneen ñu état civil bi ci boppam maanaam l'officier d'état civil ci boppam xam na ne yow aussi fa nga dëkk. même boo amul certificat d'accouchement. demal indi sa ay témoin muy chef de quartier bi muy imam bu la tudd bi. muy sa papa muy sa yaay ngeen ànd dem chez l'officier d'état civil bu ngeen demee wax ko lu lu dal xelam moom dina leen porter benn certificat de non inscription après nga topp say procédure mm-hmm. te incha yooyu souvent dangay ngay jot sa kayit sans problème mm-hmm. ñu dellu si si xale yi mm-hmm. xale yi la mooy problème bi mooy boo duggee si yenn si yenn zone yu si mel ni ngeen baal ma comme ay Diourbel supposons xam nga foofu xale yi à bas âge dañuy teel a jàng ji daara bu ñu demee daara mën nañ fa nekk bàyyi 11 ans 12 ans te bu ñu ñëwee souvent seen parents yooyu dañ leen di bëgg dalal école te yàgg te su ma juumul à 14 ans mënatoo def entrée en sixième bon di nga def entrée en sixième pour am le certificat mais pas pour jàll benn école su ma juum noonu mm-hmm. la c'est du côté éducation léegi xale boobu toog nga ba mu am 12 ans amul koy juddu léegi qu'est-ce que tu vas faire mosoo ko déclarer ñoom d'habitude duñu ñëw de joxe at normal dañuy wañi hmm ta wañi bobu aussi amul ci état civil hmm wañi amul ci état civil jugement bu gaay naan wañi lool du du jugement jugement moy ma nga sama certificat d'accouchement sama dom kat lay na mané ané bi la juddu xol nañu xol kat amul koy kayitu juddu ñu ne nañ dem defal ko jugement pour mu am koy kayitu juddu mais jugement bobu du wañi at moy manam indi nga sa certificat d'accouchement Axe, ay photocopie témoin ainsi de suite mhm. dem au officier d'état civil bi reconnaître effectivement yow tu es né le 15 septembre 1950 ici, Effectivement, bi effectivement mu defal la certificat de non inscription jox la mais nit lu jugement mhm te fraude la. Mm-hmm. ça n'a rien à voir avec le jugement ok euh, euh, Ali bala ma baye gars yi poser la question mën nga ñu ñëwaatal ci lan mo la duggal ci walu état civil bi. <laughs> da nga ci liggéey wala da nga ci mës a am cas ba mujj nekk lo xamante ni da nga ko def une mission benn sacerdoce wala. voilà moi je suis codificateur. ok mais avant ça avant ça aussi j'ai fait l'armée. Ah, hmm? Euh, am benn moment ñu am benn manque d'effectif si benn bërëb bon garaawul mooy bureau de passeports mm-hmm. ok mooy fu ñuy defaralee xale yi seen passeport xam nga xale bu waree am passeport tey ma mm-hmm. tagul am carte d'identité mm-hmm. xale amagul cinq ans ba dix ans mënagul am carte léegi kooku bu ñëwee tey pour defal passeport day indi extrait ok day indi extrait ak papier ci mais si biir extrait yooyu jamono ji may nekk foofu damay gis ni y a pas mal de problématique yoo xamante dañ ciy am il puis indi extrait bi am ko bokal indi extrait bi am lu ci def pratiquement deux ans mhm. chaque jour genre cas di ñew ma di di bon je j'ai eu l'idée mais pourquoi pas li ma def ko mhm. parce que aussi c'est un problème ñu ko bëgg a mhm. C'est la le concept au début c'était un projet d'émission Mhm. dama daan woote bon j'invite tout ce qui a un rapport par rapport à l'état civil direct ou indirectement j'invitais les juges mhm. ñu ñëw toog ñu waxtaanee état civil j'invite l'officier d'état civil l'éducation mhm. képp koo xam ne tu es dispo ma invite la ñu waxtaan ci état civil foofu laa ko commencé bon ma dem ma dem ba ci biir bind ko comme sous forme de projet hmm, continue si laa nekk di ko doxal looloo ma ci animé quoi d'accord madame <laughs> eh, ok d'accord ba fait parce que. monsieur wala madame xam nga. en classe ji Sénégal xam nañ eh, mbirum kayit coow la gi nga xam ne franchement euh, bokk na ci gën a doy waar ah. ñu koy lijjanti euh, souvent par exemple maa amoon naa amoon naa sam benn sam benn cousine. Euh, dafa dem defoon demoon na ba am ah, a war a war a dem beneen beneen école. mais après euh, dafa amone dafa amone problème pour pour amagul won sax BFM dafa waroon def BFM je pense am problème kayit parce que je pense ci kayitam yi euh, numéro de registre le la bokk ak keneen. Mhm. ne mu doon bir mi xamni daf ko pénaliser won carrément carrément ci li nga xamni ne jangam ba finalement euh, amone na BFM ba pare voilà elle était obligée dañ ko néwon carrément loolu non nga amone donc perte nga mhm. c'est-à-dire il faut nga defar voilà parce que dañu dañu leen defaraat yeneen kayit du baax mu doon xam ne affecté na ko trop trop trop trop trop mu doon benn problème mi nga xam ne gis naa ko ñu indi ci ay explication comment ça ay nit di bokk numéro de registre mm-hmm. beneen bi mooy par exemple euh, souvent li nga xam ne dañ koy gis Sénégal gis nañ ko fi gisaat ko fi que euh, des fois day am ay coow yi nga xam ne day am rek euh, gars yi dem saccagé li nga xam ne moom moo di bërëb yi nga xam ne fa la fa la fa yi nekk mm-hmm. yaa ngi de bu fi nga xam ne faañ ko archivé même ay incendie mën na fa am lépp lépp daal di yàqu tey jii nii ñi ngi xam ne tey jii seen seen seen document yooyu noonu yëpp yàqu seen kayit yooyu noonu yàqu mm-hmm. ñu nekkaat ci euh, beneen coow beneen problème ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo war a liggéey liggéey parce que ñooñu tamit xëy na peut-être euh, numéré numériser wuñu document yi euh, ba mu dool li xam ne xëy na mën na leen porter préjudice ñoom ñi xam ne ñoom moom kayit yi alors tey jii yow mbir moom noonu bu fekkoon da nga jàpp ne dañ ko war a solutionné nan lay lan lay doon ñaari mbir yooyu surtout première bi ñi nga xam ne dañuy bokk numéro numéro de registre très bien xam nga déjà y a une part de responsabilité des parents parce que lu tax man y a une part de responsabilité des parents mooy xam nga koy tujj du ma woo tafa dem toog sama kër sama doom amul koy du ñu ne ma wool tafa dina am kum la fooleel xam nga loolu deful koy du parce que koy du boo ko bëggee yow ndey bi liggéey soit papam wala yaayam yaay déplacé dem ba ci kanamu officier bi nga déclarer sa doom ñu déclarer ne bon li ma xam képp ku déclarer noonu sa doom gisuma nga am problème. Mhm. mais boo woowee Tapha la jeune Tapha la jeune jox la numéro nga woo kooku kooku defaral la këyit kooku këyit bu mu la jox suba problème boo ci am yaa ko teg sa bopp. la grande responsabilité c'est au parents. même bu fekkee ni ki nga koy jox um, ci mairie boobu lay liggéeyee fi mu war a déclarer xale bi. non cest à diir xam nga madame déclarer sa doom yow yaa ko war def. xam nga tey dañ ne la boo demee même devant l' officier d' état civil di déclarer. Mm-hmm. même bu la bindalee ba pare sax jëlal lu mu la bindalee nga liir ko. Mm-hmm. même boo mënul liir nga ut ko mën a liir nga yóbbaale ko bu demee mu liiral la. lii lu mu bind ndax tur bi amul faute. ndax am faal bi def na ci e. Mm-hmm. wala a bi jum na def ci e. xam nga yooyu yëpp c' est des choses yoo xam te ni si état civil tuuti ko. dëgg la. Mm. man sama yaay umu kalsum la tudd. te ci këyitam yi umu kalsom lañ ci def. biir bi dañ koo dañ koo sëte. da lay sonal suba après ay affaires yoo xamante ni boo ci waree jàll. te loolu da lay topp ah. da lay ah, topp <laughs> da koy kii papier umu kalsom la wax. <laughs> mais maanaam yéen li ngeen di wax ni yéen man damaa dal. Ah, waaw <laughs> am nañ kaa ci man avant may am BFM avant may am euh, may dugg mairie. maanaam mhm. bi may bi may wut carte d'identité boobu amaguma defaguma terminal laa dem comme dama doon politique si koñ bi koñ ba ñu bëri ma wutal leen carte d'identité à l'âge de 17 ans laa amoon quoi ñëpp ma wutal leen carte ba am 18 ans war a am carte d'identité dem déposé ñu ne ma yow sa extrait sa numéro keneen ma. dem mairie non dama laaj sama papa kan moom doon defar kayit ma diw laa ko doon jox ñu doon defar kayit te kooku boobu mairie lay liggéeyee ah. gis naa fi kayit yu bëri yu mu defar. bi ma duggee mairie fekk naa ko muy defar ay kayit te loolu dafa nekkoon sama combat man personnel biir mairie comme ni nga ni ma la affecté man noonu la ma affecté woon ndax damaa xam coono yi ma ci daj pour am kayit maam gi nga dig-digalu dem tribunal ñu lay renvoyé ba yi ngay wóot ay témoin gi nga loolu xale bu ko dundul mënoo koo xam maam da am lu muy def. déjà sa bopp non dafa da ngay wut ay témoins da ngay wut ñaari témoins yoo xamante ni procédure la du lu ndaw maam du looy xaman da ñëw ñu defal la ko su la kii noonu inscrit ba pare da ngay dem tribunal tribunal dina la fixer ay dates yoo xamante da ngay ñëw mais da ngay indi ay témoins témoins day nekk koo xamante ni du la jege boo ko du sa papa du sa yaay du sa maam man dem naa dem naa même fois dem naa même fois yoo xamante ni dama yóbbu ko ma jigéen ñi may ñi may raawaale oh, mhm. maanaam tu es obligé nga dajeeg benn paas koñ bi ngan ko dimbal ma ñu dem <laughs> ba bin ma joxee kayit ba bin ma joxee kayit gi bi ma toogee di ko reliraat laa gis ne même ki ko doon ki ki ko doon bindaat ki ko doon recopier maanaam yow da ngay recopier rek mhm. bindoo dara maanaam initié woo dara recopier rek ngay def mais même ki ko doon recopier bi mu waree bind papa Alassane mbay sama turu papa dafa bind papa Mbaye. mu toppatee communautaire. su ma ko liiru woon foofu duma génn bi ma ko liiree laan ko góor da nga juumaat. muy doog a bindaat dem vérifié waat doog a bindaat papa Alassane mbay loolu neexul même bi ma ñëwee maire yi mhm. si registre bi sama turu papa da jël sama turu yaay jaxase ko ak sama turu papa pour wane la mbirum état civil. loo ci wax rek ci luy métti man damaa dal man. compliqué en tout cas. il faut il faut qu'on trouve des solutions à ça parce que man amna naa sama xarit bo xamné dañuy ànd mais jabaram 2002 2000 la judd euh, ren am na 23 ans Amou koy jout. judd papaam nekk fi ngi Mauritanie yaayam nee xamu ci dara papier accouchement yi yaayam nee na pour quelle solution nous muy def extrait de naissance bay am certificat de mariage. voilà mën a déclaré doomam pas difficile. Mm-hmm. xam la pas difficile mm-hmm. xam nañ ni mm-hmm. xam nañ suma xam nañ suma papa. sama ay nga fa sama ay tonton officier d'État civil ba ñàkkul xam parce que officier civil zone. zone euh, essence du ñàkk a xam si télé man dañ ni la dem nga ba vingt trois ans amoo këyit mhm. sa xel ñoo na si war nga am këyit certificat d' accouchement souvent mën na réer mhm. des fois nga dem ko ñu defal la duplicata au niveau de la santé mhm. archive moom des fois tamit tant que numérisé wala informatisé woo mënoo am les données qu'il faut léegi dañ ni la ba léegi état civil bàyyiwu la nee na dama nga xool soit chef de quartier bi not notable la si biir koñ bi nga xool bàjjenu gox bi di félicité waale nag ngeen baal ma le président de la république. ci <laughs> bàjjenu gox <laughs> am ah. am na solo waaw lu solo la ah. bàjjenu gox yi kontaan nañu. man gox yi. dañuy liggéey ñoom te je lu ñuy taj. pour xale yi di déclarer. maa ngi leen di maa leen di jaajëfal bàjjenu gox yi. Mm-hmm. Mm-hmm. am na bàjjenu gox am na sa papa bi fa sa yaay dañ la na sa papa ñëw na sa yaay ñëw na nga am ñaari témoin bu leen leerul ngeen indi chef de quartier bi léegi bu ñëwee dañuy constituer lool nag dañuy ñëw tok officier bi ñuko kat diw mi judd na ci atum nangam sangam way jot ñuko déclarer déclaré jox la moy comme nu gaay yi daan def xam nga mag ñi am na xam yenn at duñ ko jàppale ñu jox la benn atum tawum sangam nga nga dem ba ci taw bob nga xam ane bi la coïncider nga jël année boobu benn événement bu ñi bu ñi bu ñuy lié par rapport ak ci mm-hmm. ñu lié par rapport à ça nga jël événement boo ko xool ñi judd ci atum peste bi ñi judd ci atum euh, Covid bi bu dee ci ay kii la. donc ci yooyu événement léegi ñu jël âge boobu ñu teg ko léegi mu des date bi ñu la war a jàppal weer ba. Mhm. ñu xool maanaam di ngeen ko négocier de telle sorte que bu gën fa jógee. Mhm. dinañ xam ne kat dinañ am tous les informations yu war yu nu war a am si sa ndaw soosu bu ñu la amee léegi ba pare. Mhm. officier d'état civil délivrer un certificat. non inscription ak une lettre bu ngoy bolel buy kat ñi une nañ fi def nañ décharge ni ak ni ni ak ni ni ak au niveau du tribunal. ok moi difficile mm. c'est pas difficile. xam nga problème bi lan moko lan mo nous ñun rek gi. est-ce que amul méthode bu ñu numérisation mais xam nga foofu foofu la grave dafa la jeune bu mu ba mu amee woon extrait ki mu fa daat fekk gi saa bu ñëwee mu bës machine bi génneel ko jox mu dem yoonam maanaam si biir machine bi yooyu dafa am ay lacune yoo xamante ne tey dañ ko war a gën a saytu. Mm-hmm. numériser nañu bu njëkk avant informatisation comme le cas ngeen baal ma Dantec euh, numériser nañ ko l'officier aaw ñëw commencé di liggéey di liggéey di liggéey à un certain moment donné machine yi paal. Mm-hmm. ba machine yi paadee mu ne xaaral kon ma delluwaat si registre yi pour le temps que ñuy defar machine beeg yi nu mel. Mhm. mais lu si lu si gën a grave mooy ba mu delloo si registre bi journée boobu ñu ñëw ñépp n'était pas enregistré au niveau du registre. waaw. man ma question c'est monsieur Fall c'est. ouais. ouais. man ma question c'est c'est par rapport à que euh, parce que j'ai eu affaire ben wax naa ko fi ay ay ay avec article 19 par rapport aux droits de l'enfant te beaucoup na ci euh, droit à l'identification te le droit bo ci bafé pratiquement bafé nga droit euh, droit xalé bi ndax da mhm. koy top ci droit ah yoy ben bo ci lal droit à l'éducation droit à l'épanouissement droit nangam sang, ah, droit nangam donc c'est c'est c'est très important ce projet là mhm. mais moi j'aimerais savoir exact parce que tay projet bi nga nga deugmal né nga def nga ci ay reportage dem nga ci mais bi nga xam ni moo di peut-être bu dee zone citadine yi wax nga sànq peut-être mën na nekk ak Taïf bañ a dem ci kii mais ñi nga xam ni moo di dans les zones rurales c'est-à-dire que mm-hmm. les causes ñi ngay toggal waxtaan lan mooy effectivement lan ngay jàngatee li tax parce que pour solutionner un problème il faut nga attaquer li nga xam ni moo di lee causes lan mooy lan mooy lan maanaam fan la fan la fan la góom bi nekk waaw fan la faay bi nekk carrément ak ñoom lan mooy tax ba des fois nous avons accès pour seeni doom am ci li nga xamni modi modi modi état ma deuxième question c'est est ce que tay ce projet bien nga nek am nga ci tey parce que c'est pas quelque chose de facile. Mm-hmm. c'est c'est ça demande des moyens parce que c'est de la sensibilisation. ça demande des moyens parce que day day am communication day am def ay campagne wati ci ci yenn zone yi ak ñi nga xamni ni nga lëkkaleeg ñi ñi nga xamni ni les acteurs qui tournent autour de ça moy bokku na ci officier état civil yeeg mairie nag mm-hmm. est ce que tu am nga ñu la jappalé ci li nga xamni modi projet boobu est-ce que am na tey ñu ci dugal seen loxo mu demee ni ko ONG wala mu demee ni que li nga xam ni moo di des services étatiques. oui très bien pour la première question jàppale ma nga ni comme par exemple dans boo demee ci maanaam. ci njombatal maanaam ci village yi yenn zone yi. Mhm. lan mooy carrément cause bi ba tax ñoom duñu xam nga man tama ne ba léegi le problème majeur mooy manque de sensibilisation. Mhm. xam nga nit boo wax booy waxtaan ak moom ci lu mu xamul. Mhm. da nga ko wax ci olof maanaam. wala ca langue bu mu dégg ca langue bu mu dégg mais na simple aussi. Mhm. parce que tey su ma ñëwee naa la non dangay dem tribunal dangay def li greffier bi li xam nga loolu si koo xamante ne moom jotam mooy xëy dem toolee lijjanti pataasam ah lijjanti lu mu lekk ainsi de suite ainsi de suite. Mhm. il n'a rien à voir ak yi nga koy expliquer parce que des fois du ko arrangé. Mhm. moom li ko arrangé mooy na biiram fees loolu la. tam da koy neenal sax du la da koy neenal léegi kooku noo koy jàppalee mooy comme exemple ñu jël boo demee Kolda. xam nga Kolda ay bidon da ngeen baal ma ay bidon village fa am. Mhm. village yi dañoo xaw a éparpillé wu. Mhm. da ngay fekk fële village bu ndaw fekk fa bële yooyu yëpp mënoo leen accentué wu. Mhm. ñu nekk benn benn mais ñu defal ay relais. ay relais. ok parce que ñoom déjà balaa ñuy matu rek dañuy sonn sérieusement. balaa ñuy matu charette mbaam bi leen di génnee mi ju dem matu ji. saretu mbaam boobu leen indee franchement nga leen di wax ay waxu dem déclaré doom da nga leen di sonal rek. da ngay gis benn village boo xam ne benn kër cundum lay am amoon na fii Thiès wu Rogol village Pël mais benn kër kese moo fa nekk. te yooyu ay problème la. Mhm. sensibilisation bi moo war a dem mooy nga dem si biir nit ñi nga leen xam nga article 51 dafa dafa dafa jàppale xale bi nee na ko mu am papa ak mu ñàkk am papa mën ko ko déclaré. Mhm. xam nga xale franchement nit ñi ñoo comprendre même pas accepté même papa m'a accepté l'enfant a le droit d'être déclaré juddu non? gisoo papaam que ah? mhm. mais yow yaay dama nga déclaré ko maanaam def ci turu yaayam sama turu papaam da ngay jël sa que bi nga as ak sa santu yaayam il bis bu demee ba papaam reconnaître kat effectivement kat ki sama dom la mhm. bu tamit marge aussi dañ ko koy ay procédure pour retrouver son enfant maanaam méttiwul c'est parce que les gens ne comprennent pas ok donc les communications la sensibilisation là, li nga ne parce que quand on est dans l'ignorance aussi li nga ne xaw ci sama programme bokkul ci sama dara beaucoup bu ma xamul donc ci priorité dans la vie maintenant du moment que ma aussi il faut que ma wut ay Diego. yow a ngi fi deuxième question euh, qui est aussi c'est important voilà sur ça sur le projet mhm. ici même à Thiès am na lu mu fi jotoon a commencé ah. j'ai même eu à signer un protocole d'accord avec l'IEF de Thiès on a pu sensibiliser tout Thiès ville. Mm. maanaam élèves yi fa nekk yi war trois en trente sixième te amuñu kayitu juddu ñu xool nag dañ leen di may kayitu juddu. Mm. mais nag amoon na benn taggatémbe bu ndaw bu ci amoon ngeen baal ma. bon boobu maa si waxtaanoon nag franchement suñu benn doyen fii si Cité Lamy. Mm-hmm. ah Maodo Malick Mbaye directeur ANAMO. Mm-hmm. mu c'est-à-dire lu ko xaw a taxawal sax mooy bëgguma yam Thiès. Mm-hmm. dafa ni woon projet dañ koy jël au niveau de la région de Thiès d'abord après jël ko sur le plan national. d'accord. comprendre nga. Mm-hmm. léegi on avait fait les les démarches qu'il faut on est allé voir le gouverneur on est allé voir tout ce qui ñu nga xam te ñoo seq état civil. Mm-hmm. waxtaan nañu ñoo ngi waaj a dem ci phase pratique bi nag. ok ñoo ngi jublu ci phase pratique bi mais pour le bon depuis lors il est la seule personne qui m'a dit franchement moi, xaw a tout tuuti projet bi. Mhm. Euh, di ma orienté sans sans idée de dara parce que mhm. tamit noonu la àdduna bi quoi. Comme nga ay démarches ci ONG yi taxaw xale yeeg tout ce truc. je parle avec tout le monde je parle mairie yi nga fa dem. j'ai parlé bon xam nga état civil dafa xaw a benn instant dafa xaw compliqué parce que xam nga déjà aussi même bu ñu une audience foraine nit ñi lu ñu foog audience foraine taxu ko yombee noonu. Mhm parce que l'audience foraine aussi ce n'est pas parce que nous organisons l'audience foraine rek Fournit nit nous rek nga may ko kayitu juddu. Mm-hmm. surtout Sénégal fu mu toll actuellement. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nga a ba ay paramètres la yoo xamante ni. day tax audience foraine day am beneen beneen élan. parce que y' a beaucoup d'étrangers, étrangers yoo xamante ni ñoo ngi fi tey boo nous, à Dakar ñoo peupler les écoles. ñoo peupler les écoles Les étrangers comment on va faire ba bu ñuy maye euh, audience foraine aussi ñu bañ a dugg si si suñu système aussi bon mm. parce que connecter, nekk tamit da nga système parlant de l'informatisation l'état fait des efforts c'est mm. c'est le plan NECAL mais je vois que la numérisation pour moi, ça ne règle pas le cas mm. pourquoi ça ne règle pas le cas la numérisation da ngay yéen da ngay n'est-ce pas mm-hmm. mais si c'est l'informatisation tey

moom loolu moom rêve la mais ah. mën na nekk nag mën na nekk ñoo ngi ci yoon bi. ñoo ngi ci yoon bi mais mën na nekk xam nga xam nga. Euh, mbirum kayit moom déjà pour am ko Sénégal dafa jafe. ci perte bi waaye des des jours surtout surtout étranger bi. te déjà fii à Thiès maanaam si état civil yëpp déjà caméra yi rek am na caméra boo xamante ni soo ko santee. da ngay laaj nationalité. ah oui man mii maa ngi ba may am. ah oui loolu sama carte d'identité. <laughs>

parce que daanaka Sénégal gépp loolu la yàlla bindu kaa Sénégal gépp yéen ñëpp Cees lan amee kayit mais su nekkee si procédure boobu nga gis ni gars yi ñi ngi doon jéem a eh, numériser affaire yi di ko enregistrer yooyu yëpp bi may jógee maire yi ñi ngi tolloon si 93 ñi nga xamante ñoo judd 93 maanaam commencé nañ depuis l' indépendance ba ñuy judd 93 ñi ngi leen doon enregistrer mais c'est dommage que ñoom duñu am accompagnement bi nga xamante ni moo ci war duñu am personnel bi nga xamante ni moo ci war pour terminer loolu ba lii mu wax ni ba foo mënti toog nga mën a am extrait li ciy obstacle bi rek mooy gars yi dañuy bëgg tout le temps ngay joxe trois cent hmm. te mën na ne sax nga am extrait te fay à distance ndax Sénégal tool na foofu hmm. mais li tax gars yi duñ ci sawar mooy dañuy bëgg tout le temps nga ñëw nga ñëw jël benn trois cent fay même kii ñëw maanaam trois cent norme norme mooy norme mais da gis koo xamante ne si koñ bi lay dëkk maire lay liggéey tout le temps mën na ramasser extrait yëpp ku si nekk du la fixé nag. yaa xool loo ko joxe mu defar te xam nga gars yi moom deux la ñuy joxe mille francs jëm kaw maam. waaw waaw waaw non c'est xam nga ñun ñi dëkk si quartier populaire yi. ci rajo dama am benn moment bi may nekk maire man leen ma ni booy association bi suñu koñ man xam naa ñu bëri amuñu fi kayit. Mm-hmm. léegi dañuy dugg si kër ñu recensé ñi nga xamante ne amuñu kayit ñëpp. ñu woo ñu ñëw ñu wax leen procédure bi ñuy jaar ni la bu dugg benn kër ni leen ñu ñoo leen defar kayit. Mm-hmm. mais dañ leen wax procédure bi ngeen jaar dimbali leen ci. Mm-hmm. mais recensé nañ plus de cent personnes kenn nit moo ci déplacé wu ñëw ba mairie ni ma li nga ma doon wax kat laa ñëw pour toppatoo sama doom. gi nga 200 bi ma jël fayal ko ma ñu bindal ko non inscrit 200 francs la bi ma jël fayal ko pour moom loolu da nga cee war a fay ay quinze et quelque di dem. doy na waar information boobu moo jàll. il mhm. faudra yow ak sa ñi ngay liggéeyal ñëpp. Mhm. ñu wax nit ñi nii mbirum extrait soo koy wut yomb na mais bul yóbbante tant que demuloo sa bopp. amoo sens pour am extrait bu baax. te boo demalee sa bopp peut-être information bi nga soxla ñu ne mais tamit. ñi nekk ci état civil bi aussi war nañ leen xoolaat. Ah, parfois tamit da ñëw tamit. ah akay bañ ca a am doo ko ca lépp lépp am courtier courtage xam nga ba courtage amee ci yenn mbir yi moo yu ci bari am ay njuuj njaay njuuj njaaj ak lu ci naxa ci laxasu. Mhm. y a des yoo xam ni c'est droit fañ lañ koy wutee xam nga ko fii lañ koy defee nii lañ koy defee ak nii lañ koy defee mm-hmm. si on le fait bu fekkee sensibilisation boobu jàll na mm-hmm. jarul relais jarul intermédiaire mm-hmm. ce droit la le plus absolu boo demee laaj ko ñu jox la ko mais nag am na ñoo xam ci loolu la ñuy dund duñu bëgg information bi jàll parce que bu dee trois cent la ñu benn ah. deux loolu mooy seen seen seen seen faire maam pour te dire mos na ma fi invité émission pour ñu wax suñu extrait yi mais ñi bi ma leen laajee document yi ñu bëri dañ ne ma booy loolu war a wax ah non dañu wooy loolu waro sé wax. non pa waawe presse business parce que seen ligue la mais da ngay tok ben gardien ana gardien bu nek maire ak dugg état civil bay wut extrait. <laughs> mais ñaata problème. Sénégal looloo fi am ah, ñaata problème ñaata problème ñaata problème lan fa am ci amna guerre bo xamanteni Facebook la xamé waji hmm. niko dama bëgg extrait ci waaye niko mëna la ko lijjantil. mais gel bi jour bi mu ñëwee euh, maire di expliquer li ko waaj a encaissé yëpp ci xaalis da nga naan non kii est ce que moom mii di expliquer lii rek elle est normale. Ah, est moom Sénégal la dëkk. parce que boo xam ne 300 la ngay ñëw taxaw c' est dommage que maire bi léegi procédure bi yeex na trop. Mhm. mais da nga daan ñëw taxaw gars yi dem vérification. Mhm. soo fa nekkee ñu bindal la dem ñu signé la ko ñu jox la. jeex na tàkk en tout cas mu am na solo euh, Ali waxtu bi ñu cëralee woon jeex na dañ lay bàyyi nga lancé rek. un message xool wax aussi lan ngay wax parents yi ak autorités yi pour que ñu mën ci jàpp parce que lii nag c'est un combat de tout un chacun ñun ñëpp ci war a jàpp ci sensibilisation bi parce que mbirum état civil lëmbe na jamono surtout que xale yi nag bëgg nañu jàng mais xale boo xam ne jàng na ba àgg à un niveau am problème extrait souvent ay espoir am ñooy déçu te pour mu relever wu ci ci genre yooyu déception yooyu ba mën a delluwaat école sax c'est tout un problème waaye très bien bon si xale yi dama naan seen waajur yi man nee naa la waajur laa pour may jox responsabilité bi parce que sa doom bu juddoo boo ko mënee ngénte exemple trois cent mille war nga ko mën a war na la mën a jaral nga passe mille francs dem déclarer te te déclaration nag àndul ak dara doo fay dara dañu la ñëwal ci officier d'état civil bi nga indi say témoin nga indi sa photocopie carte d'identité ñu ne la même bu xale bi sax amul papa yow yaa ji ñëwal boo ñëwee ñu déclaré la ko maanaam yónnee bi ñuy wax si yónnee yi boobu la ñu war a xaw a teg ci suuf mhm. Mhm. parce que état civil kenn du ko yónnee da ngay demal sa bopp demal sa bopp côté si côté autorité yi mhm. euh, dama naan leen bon xam nga tey boobu ba léegi maa ngi ciy yëngu franchement nag sànq bi posé na ma question bu am importance depuis lors kenn mësuma si jàppale li may def yëpp maa koy defal suma bopp nee naa leen tout récemment laa am l'appui moo euh, Maodo Malick Mbaye mm-hmm. te nag soreetul bientôt daañ ko daañ ko daañ ko mettre en pratique mm-hmm. euh, nañu gën a farataal état civil mm-hmm. parce que gis nga état civil dama ne la dañu foog ne problème bi si dëkk ba la mais Dakar la gën a kii de parce que Dakar lu tax mu garaaw mooy da ngay xam lu ñu wax nga def li la neex te actuellement boo xoolee moo bëri da ngay. mais sax kenn dëkku fa. gaa yëpp ci kii lañ jógee ñëw fa di fa def seeni activité te ñëpp léegi ne à Dakar la ñu am. ñëpp ne à Dakar la ñu am. te machine boo duggee si machine bi. boo mm-hmm. vérifier registre yi kooku la defal ne à Dakar. Mm-hmm. mooy comme saa waay lu mu waxoon boo fa demee doo fekkaat sa registre. maanaam tant que moom moo ngi fa di nga am. C'est mais vous fa un programme, excellent. extrait di di aussi l'association euh, Balma, ma di aussi association yu may mm-hmm. ah, on est basé ici à Thiès une lumière dans la rue et en même temps aussi je travaille avec CRAC mm-hmm. dont le président la présidente est Rokhaya ma koy nuyu bu baax a baax. Mhm. Euh, di kontaan si invitation bi ngeen ma mhm. invité gudd guddee naa nag mais bon. Mhm. ngeen comprendre ma Dakar Dakar yombul. Dakar yombul ah, di a jërëjëf seen di kontaan si seen plateau bi. Euh, di leen gërëm bu baax a baax di kontaan si. débat incha allah merci. macha allah ñu jaajëfal la bu baax a baax a baax Ali Fall euh, tey moo fi teewloon ñuy waxtaanee wàllum état civil ak i kayit mu nekk lu am solo ci réew boo xamante.